di sant ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Basiru Mbàkke borom bég mégtaar di ko ñaanal jàmm ju bare ci aljuma ju sell ji jël nuyoo bi jiital ci borom kër gi di Pape Thialis di ko nuyu mook Bamba mu baba ah Bamba fépp Bamba partout di kontaan ci ñoom bu baax a baax Mbaye Babacar soo fay rek daal di àndandoo jukkil leen li gën a fas ci xibaaru làmb jërëjëf ajaratu Ndeye Mbacke Diop maa ngi lay ziar ci aljuma ju sell ji comme ni nga ko waxee di nuyu suñu mbokk yépp yi nga xamante ni bi ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV di leen wax mu mubarak di leen ñaanal bëccëgu jàmm ak salaam. te di ko sàkku ci yéen ci noonu nag revue bi Unijador moo leen koy may ak gàmbu complet boobu mu àndal ak Aly Ndiaye daal ñu koy indi am na vermicelle Jador macaroni Jador spec di Jador tekki nag ataaya Jador Mbaye Babacar. waaw muy euh, produit ba nga xamante ne bii mi ngi ci marché bi yaakaar naa sénégalais yi yépp ràññee nañ ko bu baax a baax ndax euh, baaxaayam kon daw leen wuti Jador wante tamit day mbàkkee. suñu partenaires yi o Kayar ci la bokk ndox mi nga xamante ne bii neex na oyof na set sel ba pare sénégalais yëpp taamu o au Kayar la mooy ndox mi ñuy aara ca noonu vendredi 11 juin 2021 damay ne saraax ci xew-xewu làmb ak journal suñu làmb kam xëyee ci xëddam mu njëkk combat royal bay am ci diggante Modou Lo xale parcel ba Ama Baldé sëll bu ndaw ba ca Pikine lam cee xam ne nag mooy kado la kado boo xam ne dañ koo empoisonné Mbaye Babacar waaye poisonnement bi ci mbëri lay doon ça dépend ñu ñu ubbee làmb ja rek. waaw ma nga noonu boo nee saraax ci biir journal bi danga ma fay fekk ma ferenkulaayu fekk fa Modou Lo ak ki nga xamante ne bii moom mooy Ama Baldé suñu làmb nee na combat boobu euh, combat la ba nga xam ne foo dem ci réew mi moom wala bitim réew sax ñi nga xamante ne bii ñoo bëgg làmb di topp làmb ñi ngi koy waxtaane di ko coow incha allah mu war a am le vingt cinq decembre komba Lo Ama Baldé nara bokk ci combat yi nga xamante ne bii mën nañ jàpp ne dina gën a neex ci combat yi am ci làmb ji. dina gën a neex ndax day nekk suñu fête nationale ca noonu nag soq ginnaaw ba mu amee ndam ci kanamu gàmmu gëy ka mu visé nag Mbaye Babacar mooy Sa Thiès Moussa Ndoye ak Reug Reug nee na bëri naa ak samay morom ba ñu jeex tàkk ndax def naa 17 combats ci làmb ji fi mu toll nii jot na nag ma déclenché dem ci kaw fi mu toll nii moom nee na moromam yi paqueté na leen tegee na leen ci gannaaw fi mu toll nii ñi mu bëgg a bëreel mooy ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci kaw ndax dafa war a monter grade mi ngi noonu. li ngi noonu. yéeg daal la bëgg. xar day weesu mbote. ca dëgg dëgg te booy xool sax dañuy naan boo soxlaa étoile yi. waaw yéegal ba ci kaw ko boo daanoo dal ci étoile. daal di muñ wallaahi. <laughs> ca doon nag am le 19 juin te Vox Arena daal di koy taxawal di dox ci diggante Franc ak ki nga xam te ne mooy Tyson numéro 2. Mhm. suñu baay ma Mandiaye xëy na da ci àddu Mbaye Babacar di décortiquer combat boobu. moom mooy euh, tàggat école de lutte Songane Gueye ma Mandiaye. moom li mu xamle nee na diggante Franc ak ki nga xam ne moom mooy Tyson 2 nee na Franc amatul lu muy lu muy lu muy prouver ci bëre simple ndax def na ci def na fi lu nekk te it trophée bu nekk jël na ko ci li nga xamante ne bii moom mooy bëre simple bi mu ñëwee ci euh, Franc nag la la jox favori bi mu ñëwee ci Tyson 2 nee na Tyson 2 macha allah. mbër la ma nga xam ne dafa mën a bëre wante mën naa xeex wante mbër la ma nga xamante ne bii amul lu muy ragal amul ku muy ragal ci làmb loolu leer na ca loolu nag contribution bi nga xam ne suñu doyen moo koy amal nee na Aziz Ndiaye moom nit ku baax la ndax lu jëmal làmb kanam rek Aziz Ndiaye mu ngi ciy taxaw te mu jàppale sportif bu baax a baax. Masib Sène mooy yëkkati yooyu la kàddu nekk ka nga xam ne xam-xamam dafa jëm ci wàllu tas xabaar nee na Aziz Ndiaye modèle la ci wàllu làmb ndax nit la ka nga xamante ne bii du fekkee lenn lu ñaaw. bokk na ci ay jikkoom diggante bu ñagas dina jéem a taxaw ba mu rattax ba ñu nekkaat ci jàmm ak salaam moo tax mu a Aziz kenn gënu ko. kenn du ko gën ñu koy ñaanal gudd fan gu bëree bëri moom Aziz Aly Ndiaye ca noonu nag Jamaïcain combat bam nar a amal fee ca Gambia people muy nag événement bu mag lam ci ne nee na combat bu Mbaye Babacar. moo raw Modou Lo Ama Baldé Sénégal waaye combat bi dox ci France ak Leket Baara règlement de compte la ñoom ndax la wala 2 wala 2 dañoo mës a daje Leket Baara ne daan na France waaye France nanguwul nee na ma benn yoon wante incha allah bu ñu dajee ci arène bi dana leer ndax ñoom ñaar wax nga ko sànq seen combat. foofu ci Gambie fii day mel ni fii ci Sénégal Modou Lo Ama Baldé nekk komba ba nga xamante ne bii combat bu rëy la foofu ci Gambie Gambie foo wër combat bi la ñuy xaar ci diggante jamaïcain ci diggante France ak Légat Baare te jamaïcain tëgg ko mu tuddee ko nag suñu papa euh, suma jigéen duur moom la jël drapeau bi dippee ko ko mën a nekk bis bu mag ndax bis du tuuti. borom lay tollool loolu la roi du mbalax la ca noonu nag Ibamar lañ jëm. Pikine ak Thiès benn dëkk ñaari gaar weekend ba nar a toj tàng jër Modou Fall nag mu ngi xëy di décortiquer combat ya waaw Modou Fall moom moo moom moo moom mooy jàngat combat yi nga xamante ne bii moo war a am ci ci weekend bi diggante samedi ak dimanche nee na bu ñu ñëwee ci Ville désert ak Guine nee day jël ki nga xam ne moom mooy Guine jox ko 60 pour cent ci boobule combat jël quarante pour cent jox ko Ville désert nee li tax li tax mu wax loolu nee na ñoom ñaar ñëpp ay ndaanaan lan wante ki mu yaakaar ne moo ëpp chance ci boobule combat mooy boobu mooy mooy Guine bu ñëwee ci combat Aline Bay Nder Batista mu ne ñoom ñaar euh, li mu gis ci ñoom raar na. mu koy gis ci ay mbër yu nekk ci arène ndax ñoom ñaar dañoo mën a ñaari côté yëpp dañoo mën a bëre mën a xeex mën a ko combat bu neex diggante Alioune bay Nder ak batusta waaye bu ñu demee fële ca Thiès kaay arobase ak euh, fils de Samba jaw nee na comme ni nga ko waxee ci franc amatul lu muy prouver ci bëre simple ndax def na lu ne ci bëre simple dafa mën a jàppante mën li nga xamante ne bii moom mooy lutte pure diir waaye fils de Zal fils de Samba Diaw nag. Euh, domicile a domicile la nekk di bëre wante loolu warul tax mu naagu ndax lu toll nu mu may arobase rek dina jël ndam li ci kaw ca noonu nag làmb dañ prévoir woon le 20 juin bi jëm te mbay guy gi daal koy taxawal problème dafa am manquement de date ba tax na promoteur bi daal dinay reporter date ba ba la 3 juillet incha allah diggante Cheikh Tidiane Niang ak Nongolo. mu nar a nekk combat bu neex ba nga xamante ni bii wax nga ko incha allah bu ci yàlla àndee mbay guy gi moo ko tëgg dem na équipe nationale ànd ak Pa Ambourage Sarr def fa lu nekk loolu la suñu làmb wax wane na lu nekk ci lutte simple bi moom tamit ndax bëri na équipe nationale yaakaar naa lutte simple boo demee équipe nationale rek daanaka plafonné nga mm-hmm. mun a Cheikh Tidiane Dieng mu ne euh, ndongoloo nag dafa war a ñëw wanewaat leneen lu bees ci làmb war a wanewaat leneen la nga xamante ne bii xar kanam bu bees la gannaaw bu mu jógee écrit ba mu nekkoon euh, dem écrit euh, Birahim Ndiaye lii war fa nekk première combat am war nekk première sortie ca noonu nag ginnaaw ba mu bëree di dajale trois combats trois avance ñëpp di jël ay avance yu duul avance yu diis kenn la Ponicheur de Waalo nag gisuñu ko dégguñu ko mu ngi toog ruqam depuis ba mu daanee ki nga xam ne mooy Eumeu Sène ba léegi la muy mooy avance yu bari yi moom du ko def benn benn lay def yéeg waaj mbay Babacar nee na combat royal rek la moo ko dese combat rek lay bëreeti wala dootul bëre ba tax na Modou Lo Ama Baldé nee na man maa ngi toog sama ruq di entraîné di xaar nag ku daan rek bu nu ma joxee avance sama bëree ak moom. ca noonu nag journal record lañ jëm nga xam ne mooy Eumeu Sène borom taay si nga borom def du la muy promettre fan sami rek journal bi tuddee mboq ya nee na mboq yi prochaine victoire am day ñëw ba Gambia people daal koy féete ak ñoom. bu daanee loolu la wax sama victoire sama combat bi ma jëm su ma daanee euh, Gambie laay féete li nga xam ne moom mooy ndam li fan la yëkkatee yooyu la kàddu ca Gambie ci kanamu mbooloo mu takku nag. mbooloo ma nga xamante ne bii macha allah ba mu demee Gàmbu dañ koo teeru comme ni ñuy teeroo teeroo buur. ca noonu nag ginnaaw ba Fils de Balla amee ay gaañu gaañu blessure ba mu am ba tax comme combat bi danoon dox ci diggante Fils de Balla ak général Malika mujjul àncu. Mbaye Babacar mbër yi nga xam te ne mooy booy Pouy ak Taqe ñoo sauvé journée na Ndiaye yax moo tax na Aziz Ndiaye mën na compter ci ñoom. Assane borom Bawol production gannaaw ba mu ubbee saison fële ca Diourbel le 15 mai bii passé. mu fas yéene commencé saison fii tamit ci euh, Dakar waroon na tëgg général Malick ak fils de Zal ak fils de Zal wax nga ko fils de Zal am ay gàllankoor am ay gaañu gaañu moo tax mënu la bëre léegi nag taqee ak booy puy ñoo nar a sauver boobule combat ñoom ñaar ñu nekk ay jeune espoir ya nga xam ne ñoom tamit war na nañoo profité ci événement bi wane seen bopp ndax. Euh, sens la ci ñoom ñu wane seen bopp ndax grand combat la ñuy bëre waroon na bëre li nga xam ne moom mooy combat spécial ma ngi noonu nag dama koy jaajëfal bu baax moom Mbaye Babacar loolu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb Mbaye looy tàggatoo euh, xanaa jaajafal ñëpp dig leen daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ak jàmm wante di nuyu sama jigéen sama xarit Adja Fall borom cent pour cent Bawol madame la présidente maa ngi lay ziar maa ngi lay nuyu chaque jour mu ngi ñuy topp ci revue de l'arène bi ñuy amal fii ci euh, euh, léoto TV ñi ngi koy ñaanal jàmm ak salaam di nit ku baax nit ku bëgg dëkkam nag nit ku bëgg Bawol booy wër nit ku gëm boppam wala nit ku gëm dëkkam wala nit kuy tiitaroo dëkkam boo dajeek Adja Fall da ngay dëkk ñu koy ñaanal bu baax jàmm ak salaam di nuyu waa 100 pour cent Bawol yépp di leen ñaanal jàmm ak salaam jàmm ak salaam laa di ñaanal damay sant di gërëm sama équipe bi ah, Bilal damay kontaan ci yow bu baax a baax mañ pro borom yu baax damay kontaan bu baax a baax Fama bég naa ci yow Yacine Fall maa ngi bu baax a baax Waalo dama leen nuyu te la jaajëfal bu baax matu borom administration ah borom loxo bu kuj bi dama koy nuyu bu baax a baax. loxo bu yeex bi ay loxo bu yeex bi. Aïda Diouf Diouf ñu ko damay kontaan ci yow ah Ousmane bég naa ci yow. Bamba mon papa mention spéciale kooku moom dama koy wax ca kaw ah c'est mon papa je l'aime trop trop trop trop trop Kébé damay bëgg ci ñoom Adja Ndafi Ndiaye kontaan ci yow ah sama chauffeur bi moom moom maa damay bëgg ci moom ah 100 pour cent sécurité noonu laay def rek ñaanal leen kenn dal ak jàmm te di ko sàkku ci yeen ba ëllëg incha allah ci Leewtoo TV. ñoom ñaar jéggi na su yor wàcc na jël na Tapha Tine dóor a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa daan na